Euh, wax naa la ko léegi askan wi euh, kenn nelawul ak ñaari bët li ko waral mooy li ñu dund mu tiis loolu te wax dëgg yàlla seen kaaraange ci seen loxo la nekk gannaaw yàlla ñi ci yàqule kenn xamul nu mu toll man gis naa ci ñoo xam ni fii ci banlieue bi vraiment dama sama xol dafa jeex parce que alalu jàmbur jaare noonu ñu yóbbu ko ñi nga alal ji sax di ko wax sax beneen affaire la parce que fi nga xam ne ay nit am nañ fa gaañu gaañu yoo xam ni baaxati sax ci ci seen bët wala seen leneen loolu mën na nekk leneen euh, ñi ci ñàkk seen bakkan mais est-ce que loolu waruñu ci taxaw nag te bokk na ci li nga xam ne mooy revendication yëpp di wax mooy justice bu jaarul yoon li ñu teg Ousmane Sonko dañ ko war a teggi ndax loolu waruñu xool nuñ ko war a liggéentee ak lu ñu war a mën a def ba jàmm mën a dellusiwaat ci réew mi. Pape Ngagne wax nga dëgg euh, gis nga li xew si réew mi wax naa ko bi ci introduction man la mosul am ci réew mi boo xam ne nii loo xam ne ni musul am ci réew mi dañu war a taxaw gis nga fi ñu toll nii problème essentiel centrale bi fi ñu toll nii non pas troisième mandat wala troisième je dis même pas troisième mandat parce que même loolu mandat peuple bee koy nga bëgg wax taxul mu am peuple bi mooy joxe man dama gëm ni sénégalais yi ñoom ñooy joxe. élection te mhm. gëm naa ni Macky Sall gëm ni élection sénégalais yi ñooy joxe moo tax mu nekk président de la république. Mhm. et loolu yeggaguñ fa xam nga lu ñu yeggagul munul nekk euh, problème central problème bi xam nga lan la man doxantu naa si banlieue bi si géejawaay waxe naan Nimzaat samedi ak dimanche li ñu gis insécurité boobu di ñëw. c'est vrai il faut le reconnaître njàqare am na si réew mi c'est une mais njàqare boobu am si réew mi xam nga lu ko indi parce que ñu jóg aussi taxaw ne dañuy indi terreur ci biir réew mi mais loolu lañ ci jublu nit ñi tiit nit ñi toog seen kër bañ a génn mais yow réew jante euh, wax na ko sànq France euh, walla réew moo dem di nga am infrastructure bu mel ni BRT pareegul nga dem di ko toj mais loolu suñu alal la suñu lempo la ministre de l'intérieur wax nga ko ku bëgg di manifester di nga dem di attaquer usine ndox ne danga koy saboter loolu parce que yaa ngi bëgg yi am ci bëgg nga nit ñi mer bëgg nga nit ñi tiit toog seen biir kër bëgg nga attaquer école yi nit ñi téye seen seeni doom mais loolu mooy terrorisme ah. on veut faire régner la terreur dans le pays ñëpp ragal mais état président wax na ko wax nañ ko keroog ministre de l'intérieur wax na ko matuwaay yëpp jël nañ ko pour que réew mi dellu si si dal réew mi dellu si si jàmm ñu accru assurer mais waxoon nañ ko fi en 2021 oui mais waxoon nañ ko fi loolu man gëw ma ne li amoon 2021 am na euh, bi yoon parce que ay oui non non parce que en termes de dégâts mais 2021 on a une semaine de crise on a vécu une semaine de crise on a vécu une semaine lii benn fan la. mais benn fan bi benn fan bi dégâts yi dégâts yi dégâts yi dégâts yi kenn mënu koy expliquer de. mais c'est pour ça dégâts yu mel noonu su amee ci benn fan ça veut dire que c'est organiser c'est planifié c'est mais xam nga loolu il faut ñu nangu ko. Mm-hmm. xam nga planification organisation. parce que groupe bu organisé wu di dem mais bi ñu leen neutraliser état bi force de défense et de sécurité ñaari fan disatoo événement vendredi wàcc na 80 pour cent samedi déggoo manifestation parce que da ngay gis mode opératoire bi donc il y a une volonté et une entreprise mhm. de paralysie de l'économie sénégalaise parce que nit ñi ñooñu loolu mooy seen stratégie de désacralisation des institutions pour que le chaos s'installe dans le pays loolu laa wax nii gis nga ñi koy def képp kuy démocrate kuy républicain da ko war a condamner et condamner ko fermement. dina mhm. kii suma rakk la maa ngi ko découvrir ci benn conférence bu ñu dajee ci benn corps mu wax ba pare ma ne ko yow ndaw bu am avenir nga si réew mi. si discours bi ngay dégg parce que elle a une formation elle est dans le mouvement de jeunesse elle voyage à travers l'Afrique gis nga bu ñu buggee suñu réew avancé. ñun amuñu complexe kenn ci réewu Afrique yi dañu war a jox et je le dis parce que j'ai été acteur des politiques publiques de jeunesse pendant quand même lu mat juróom-ñaari at li nga boo tollee réew population juvénile ni mu toll Sénégal képp et je le dis depuis plus de quinze ans il faut un consensus fort sur les problématiques de jeunesse li nga xam ne nii mooy problème mu jeunes yëpp muy santé muy santé de la reproduction muy les questions d'éducation éducation sexuelle éducation formation parce que gis nga loolu bu ñu ko deful ma ni employabilité formation insertion gis nga loolu bu ñu ko deful billaahi suñu réew yu mel ni moo fi am parce que pauvreté am na fi c'est une réalité précarité am na fi c'est une réalité mënuñu toog ne loolu amu fi mais gis nga ñooñu doo leen jël bu dee homme politique nga ko war a defar réew nga am dangay leen di jox discours bu leen di defar discours bu leen di wax ni doo xëy rek sa àdduna sotti xale yi nañu jàng xale yi nañ développer l'esprit d'entreprise xale yi am leen métier parce que réew yëpp soo demee France pays développé yëpp la ñuy xeex d'abord mooy seen taux d'achèvement mooy génération bu dugg CI yi ñu fexe ba nga xam ne nii pratiquement 100 pour cent am am am entrée en ba nga xam ne nii dès le brevet ñu indi l' enseignement professionnel parce que ñëpp mënuñu continuer enseignement général mais bu fekkee ni yow xale yi yaa ngi leen di gëmloo ni situation yi ngeen nekk gars yi dañuy sàcc seen xaalis dañuy détourner seen xaalis tu es de développer la haine chez les jeunes tu es en de développer loo xam ne nii la défiance envers les institutions gis nga discours politique boobu. c'est très facile mais day mais dafay yomb ci jeunes yoo xam jàppul ci dara quoi yi. xam nga a métti loolu ci jeunes yoo xam ne dañu leen par exemple plus de 500000 emplois xam nga lu gën a métti. dafay yomb pour que nga capter jeunes yooyu. xam nga jeune boo xam ne préoccupement occupé na. mënoo def ci moom dara leneen loo xam ne. loolu moo métti et c'est ce qu'on attend d'un d'un pouvoir d'un homme pouvoir c'est important c'est ce qu'on attend d'un pouvoir et c'est ce que le pouvoir est en train de faire OK c'est ce qu'on attend d'un pouvoir et c'est ce que le pouvoir est en train de faire mais ce qu'on attend aussi de l'homme politique de d'opposition c'est nga am un discours et une offre alternative ne ah man tant de lycée am na fi su ma ñëwee yéen ndaw ñi danaa ko yokku temps parce que xam nga ñëw sur une hmm. baguette magique gëmloo leen ni su ma ñëwee yéen ñëpp seen vie dina changé am na xale bu ñu jàpp si manifestation yi ñu ne ko bi mu demee commissariat dañ ma wax ni waaw man de su ma xeexee bu Sonko jëlee pouvoir bi sama sama vie dina changé ce qui vie change la vie d'un homme c'est c'est c'est c'est l'éducation c'est la formation c'est la citoyenneté gis nga loolu citoyenneté rôle parti politique encore une fois première fonction parti politique xam na ñaan parti politique conquête du pouvoir mais le premier rôle de parti politique c'est d'éducation à la citoyenneté mais yow mënuloo créer parti politique nga war a liggéey ci liy conscientiser si luy éducation citoyenne ci liy formation à la citoyenneté yow sa combat yëpp mu ngi mobiliser euh, ndaw ñi pour naka la ñuy def pour ñu taal seen réew loolu euh, dama ne defalu réew mi démb. defaru ko tey te du ko defar ëllëg. te may rappelé bu ndaw ñi amoon ci lu ñuy jàpp du yomb de non ndaw ñi. du yomb de ma ni mais du yomb de benn discours mën a dugg ci seen. nopp non non non non cest que gis nga ndaw ñi lii Sénégal di def damay wax Sénégal buggum parce que dafay jël temps euh, Marème wax na ko sànq bon bàyyi naa sax mu jàll. si le Sénégal a une lettre de le Sénégal est premier pays africain. en 2006 bu am lettre de politique sectorielle de la jeunesse. en 2006 lettre de politique sectorielle est différente de politique nationale de la jeunesse. defal nag defal nag defal nag une lettre de politique sectorielle grand grand xafoor suñu grand nga respecté nañ la mais une lettre politique sectorielle est différente d'une politique nationale de la jeunesse. defal nag te su amee nag. defal nag defal nag defal nag defal nag defal nag moo la lettre de politique sectorielle mooy la planification. de toutes les politiques publiques en matière de jeunesse. Et cette lettre de politique sectorielle de la jeunesse est déclinée en fonction de cinq orientations stratégiques en plan national d'action sur dix ans. loolu Sénégal daf ko signé ba dem charte africaine de la jeunesse di ko signé Aliou Sow nekk ministre de la jeunesse en man maa ngi nekk directeur général de l'agence de l'agence nationale pour l'emploi des jeunes donc je connais très bien le Sénégal est en Afrique au sud du à part le à part la Tunisie pour disposer d'abord d'une politique nationale de jeunesse d'une politique publique de jeunesse d'une lettre politique de sectorielle jeunesse et de plan national d'action sur l'emploi des jeunes 2006 ba 2016 li fi nekk Sénégal yëpp ci plan national d'action boobu la jëm sur la santé de la reproduction loolu moo indi ay centre conseil adolescent ci li nga xam ne nii moo indi espace jeunes yi dama ne sur l'employabilité des jeunes li nga xam ne mooy développement de l'esprit d'entreprise et de l'employabilité. Nous sommes le premier pays, tous les pays africains au sud du Sahara, à part le Maroc et la Tunisie, qui ont créé des instruments de promotion des jeunes, sont venus ici en voyage benchmark au Sénégal se sont inspirés du modèle. Euh, dama la bu ñu nekk résultat yi yan résultat escompté lañ mën a. bu ñu nekk dans l'autre résultat la waaw dafa nank rek xam nga moo tax. gis nga pédagogie boobu la ñu war a am envers les jeunes moo tax ma ne nañu am consensus sur la question parce que bu ñu abordé parce que ñii ñoo jël suñu relève ci secteur jeunesse bi et qui font un excellent travail mais dafa dafa dafa am solo ñu am mémoire bi ak histoire bi dama ne ba 2000 Sénégal politique publique de jeunesse effectivement c'était que le volet asso volet associatif soo xoolee budget Sénégal ku ko dem seeti ci archives yi mille deux mille le budget en matière d'employabilité c'était 30 millions demal nga seet ko ci budget ministère de la jeunesse et des sports en 2000 politique publique de jeunesse mu ngi commencé 2000 effectivement sur 10 milliards sur 5 man bu may passé service en 2012 le paquet de projets programme 18 milliards la woon aujourd'hui après mars 2021 sur l'effort national 450 milliards 150 milliards parce que le défi majeur c'est l'allocation de ressources naka la ñuy dajalee alal ju bari ñu dugal ko ci njàng ndaw ñi ci formation ndaw ñi loolu ñu ngi koy def et ñu ngi koy def des efforts conséquents gis nga tey résultat bi c'est important parce que résultat bi moo tax gis nga il faut ñu déggoo ci du problème bu ñuy régler sur la base d'une baguette magique il faut qu'on le comprenne okay. et c'est démagogique okay. et populiste de dire parce que defar ndaw moo gën a a metti foofu euh, yàq ndaw la la, la tey boo liiree conseil des communiqué conseil des ministres oui. président dikk na ci ñaar yoon daanaka ci sàkku ci ministre des finances ak le ministre de la jeunesse ñu taxaw xoolaat euh, wàllu xëyu ndaw ñi dikkaat na ci ci ministre de l' emploi. parce que ak ministre de la jeunesse. parce que loolu. non non c' juste rek priorité priorité absolue. d' léegi léegi sécurité bi. xafoo gis nga gis nga gis nga bu ñu ñëwul. waa bàyyi non non non non c' est juste rek non bu ñu ñëwul. ci lii cause yi. xam nga man man man li ma d' accordul ak Mariam rek mooy xam nga mu bëgg li xew ci Sénégal mu yóbbu ko ci mandat. d' accord amul amul amul amul parce que ba terminer que sànq ba léegi tontu si foofu laay daanelee. ok Karim Wade ak xalifa Sall état moo leen topp. topp état moo nekk à l'origine des poursuites munoo boole problème Karim Wade ak xalifa Sall ak problème Ousmane Sonko Ousmane Sonko citoyen nit moo jóg porté ko plainte ne ko daf ko fekk ci bérébu liggéeykaayam ñu seq mu yóbbu ko tribunal. tribunal ne tribunal ne contrairement à corruption de la jeunesse du daf ko jox xaalis de déedéet tribunal ne xale bi de li mu plainte kii ne daf ko sàkku ak menace de mort nga xam ne ni dañ ko criminaliser ci suñu droit penal buñ lay daan bu minimum buñ nee da nga violé fukki at la maximum ñaar fukki at je pense que le juge il a été humain et équilibré juge bi neewul xale bi li mu ne kii daf ko sàkku dafa ne non tëddee na ko du benn du ñaar du ñett wante wante wante dama koy disqualifier en waxul ni liñ ko doon toppee amul de dafa ne dama ko disqualifier mu nekk attentat aux mœurs parce que kii am na daanaka cinquante ans kii am na ñaar fukki at te xale bu jigéen boo xam ne nii amagul ñaar fukki at ak benn bu séq koo xam ne daf ko mag lu ëpp ci loo xam ne nii du coobareem wala daf ko dafa ci leneen mais fait yi le juge dafa disqualifier fait de viol ah li nga xam ne nii mooy corruption de la jeunesse ci corruption de la jeunesse xam nga bu ñu nee corruption de la jeunesse ñu ngi def dans la dans la dans la ma ni comme si dafa dafa guerre wala non xam nga loolu mooy comme li ñu doon wax euh, attentat au mœurs li nga xam ne nii euh, rafetul Euh, ci société wante bu fekkee ni yow da nga am problème ak nit parce que Ousmane mënul wax ni demu fa. Khafor merci beaucoup juge bi néew. d' accord sequñu loolu il faut ñu leeral ko. d' accord loolu loolu nit. boo amee loolu. d' accord je pense que ba pare wuyu jiwoo. d' accord merci beaucoup alors euh, Lamine euh, dégg nañu tey que Ndeye Khady def